asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonant bi salallaahu alayhi wa mu ngi nuyu Bougane di njiitu kër gi di nuyu personnel bi di leen maa ngi nuyu Cheikh Mbacke Ndiaye Spine ak soxna Rama Sylla di nuyu soxna Gane Gueye maa ngi nuyu le commissaire Damba Sarr ak le colonel Moussa Fall des eaux et maa ngi nuyu Asfaal bu Alamine di transporteur si yëmbal di nuyu monsieur Traoré directeur centre horticole bu Cambérène maa ngi nuyu Cheikh Thiaw ak soxnaam Aminata Gueye maa ngi nuyu le sapeur à la retraite Mamadou Ndiaye si Amon 5 ñu ngi nuyu njaboot gi di nuyu dëkkandoo yi di nuyu ñëpp yàlla na yàlla dolli dal ak jàmm si réew mi tey dañu ñëw si la dermite séborréique wala la dermatite séborréique kon mën nañu wax ñaari tur yooyu dermite séborréique wala dermatite séborroïque mu nekk ba léegi si feebaru der yi tawat bu doy waar nag boo xamante ni moom dafay ñaawal deru at doomu aadama ndax dafa def ay taches yu xonq léeg mu def ay plaque mën naa yàq kon kooku rafetul si si der facteurs yi koy favoriser nag bari na bokk na si pollution les facteurs externes tels que climat bi facteur climatique yi yaa xam léeg mu sedd léeg mu tàng léeg mu lay hmm? facteur atmosphérique bi muy pollution bi poussière yeeg xeetu saxaar yeeg ñoom seen gaz yeeg yëpp da koy favoriser am na ñuy wax les facteurs internes aussi loolu souvent ma nekk stress mën na ko ni kuy stressé souvent walla aussi li ñuy wax les champignons yenn xeetu champignons yi dañ koy favoriser kon loolu mooy liy sabab tawat bi mu nekk nag ay taches yoo xam ne dafay xonk ay plaques di laal aussi der léeg-léeg mu xasan mais xasan bi du tar topp. bokk la xasanu ku rëbët mais xasan ne xasan bi tarul noonu beneen bi mooy euh, dinay am ay parti muy ëpp lu muy laal si nit ki bokk na si li ñuy wax les ailes du nez yii si le sillon entre le nez la moustache puis da koy laal et les koy laal nay laal bopp nag la cuir chevelu am na yoo daf leen def sax leel léeg-léeg mu yóbbu karaw gi complètement waaw loolu moom bari na lu mu koy lu mu koy lu mu koy def kon bopp bi lépp lu muy laal les sillons entre les lèvres et le nez day laal aussi les sourcils mu yéen yéen nag bu ñu ko defee mooy sourcil yi la wax yéen yéen mooy sourcil lay laal fii aussi kon partie lépp lu muy feeñ si si nit bu dee si xale yi aussi ñu toll si nàmp seen fes bi ñuy fax fes muy ginnaaw gi la ëpp lu muy laal surtout ñi nga xam ne nag dañu tàmm duñu ñu fu ñu toll ñu ngi toog si suuf si day bari lu muy di laal si ginnaaw kon parental yi ak ñiy nàmp moom seen ginnaaw la ëpp lu muy lu muy laal léeg-léeg aussi mu laal cuir chevelu bi bopp bi mais si mag ñi la ëppee kon loolu léeg-léeg bu dee xale mën na laal yaram bi yëpp am na xale yoo xamante seen yëpp ay def ay ay ay tâche ay ak mais bu dee mag ñi moom bop bi la lu muy laal kanam gi. ak région externe mooy fii yax gi dënn bi dafay ba lu mu koy lu laal kon loolu mooy la dermite sébo séborréique tegtal yi nag na danañ si indi ñaar bu dee pour nourrisson mooy pa xale bi nàmp moom huile amande douce amande douce huile bi ngeen di wut diw amande douce ngeen di wut di ko diwal si tâche daf koy daf koy dindi su dee mag nag bi nga xam ne daal daf ko def leel da wut euh, limon nga tek xar limon bi tek binegal so jël limon bi ciap ci binegal bi di bombo ci bob bam daj nga bo amé diw xabar sa diw ko ci boy teud di wala dal ci carton yalla moy limon bi ngay boole binegal boko ci foroté bam daj bob bi nga jël diw xabar sa diw ko ci teud ci carton yalla yalla mën nako saral mën nako mën nako mën nako oyofal benen boy ci persi tâche aussi bo amé persi de bob nek pat ko fi def daf koy dindi kon ñaari remède yoy den mën nako utiliser bu dé ci walu mak la bu dé xalé nak dama du ci lay diwal question yi ñu jël tey ñaar la kii daal nee na moom euh, waaw dafa gént daal xaaju si bopp maanaam am blessure si bopp bi xaaju xaañ ko daal maanaam waaw loolu day moom ndam la di nga am ndam say ennemi say noon daal moom du ñu kontaan ndam la lay am say ennemi say noon si kàttanu yàlla euh, gént gu mujj gi kii nee na moom al muminuun la gént mooy les croyants ah baax na de baax na de baax na de loolu daal boo ko géntee moom hmm? sant yàlla de moom yàlla daal dina yokk sa imaan ne ko nekk koo xamante ni daal doo ji dafa ndegam imaan te it fa nga jëm dañ fa am yaakaar lool ñu leen tàggu fi leen jox rajo si leen jotaay jërëjëf